jaajëfal baax si ànd ki nga xam ne ànd ngeen ko ak ñun ci suñu émission yaru ak yare bi nga xam ñu ngi koy amal ci studio Yaatal Mbindum Alxuraan C3S euh, Yaraax di siyaar itam euh, mboolem suñu mbokk internet yi xam ñu ngi ñuy topp waaye di leen ñaan nag ñu gën a abonné ci suñu seen Yaatal Mbindum Alxuraan euh, ngir li fi lépp mbokk yi di ko mën a ànd ak ñun di si gën di mën a jariñu waaye di di si gën di dolli ko itam di laaj seen xalaat ndax mbokk yi saa sune rek Euh, ñu ngi bindante ak ñun naan ñu bu ngeen ko defoon nangam day dana gën a baax yooyu yëpp na dafa am solo ndax toog gi ñu toog fii di laa birante mbokk jullit yi euh, dañuy jàpp ne am nattu la ndax ñee waxal ñoo la féete kaw ci lu bare bare waaye nag xam nga dafa am loo xam mënut am ñu ko taxawee waaye ñi ñuy gàggante ak di ñu toppitam ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di jiital si nuyoo bi nag euh, alaaj Serigne Seck mi mooy nekk si njiital compagnie Serigne Seck Sénégal di jiit di nuyu itam Cheikh Mamadou Fadil di nuyu si Ahmed Dame Touré coordinateur waaye itam di siyaaru baax mboolem mboolem mi xam ñu ngi liggéey ci commission yaatan bind alxuraan di si jiital nuyoo bi Serigne Khadim Ndiaye al imam ak mboolem ñi xam ñu ngi si biir daara ji eh, di si yaatam suñu Omar Sylla mi nga xam ne moom mooy àndaat ak yow léegi si kanam incha allah rabbi ci émission boole boobu nga xam niñ ko baaxoo di waxee rek eh, bu amee noonu impact moom eh, bariwul ndax alxuraan xamul mel ne ay fiima faal na bi bi ngay jokkale ak bi ngay daggal keroog ñu si doon waxtaan kooku amul daray grammaire lu leen séparé. maanaam tey fi mu ne moom am xel mu neex rek mooy la ci takku ko du taaw ba caat ma du mm-hmm. nga demaat ay fima shahata ak fima afatum yooyu yëpp day nekk yoo xam ni eh, ki la ko tënkal ba dee la ko jàngal yenn ñu jukkee ko si ay téere yi rasmu mm-hmm. ñenn ñi dem def seenu xaraña ba indi ko ñooñu ñu taxawaat di ko nafarante ak yéen mat nañoo ñaanal kon ñu ngi leen di ñaanal baax eh, borom dootu leen eh, kattan waaye di saa dem suñu Moustapha Sarr suñu technicien waaye di jaajëfal baax suñu Abdou Khoudous Sylla Eh, ci wàllu yaatal gi ak ak gi di siyaaru wax nag sëñ maxtaar mi nga xam ne moom eh, lu ñu wax si moom rek doyut ndax maanaam maanaam jàppandi gi eh, ak itam macha allah jekk li muy wax te itam am si ak laabire donc ñu ngi lay siyaaru wax si maxtaar di la jaajëfal di ñaan borom bi gën a dolli xam-xam bi gën a leeral xel mi te itam mboolem xuruuf yi xam yaa ngi koy xam le borom bi def yëpp muy aw yiw xam naa dama lay bàyyi nga nuyoo bu noppee na ñu sof Euh, suñu numéro bi passé muy 21 ñu doon waxtaan lu ama am solo muy temps waaye dañ koy wéyal joxewaat si ay bind waaye nag joxe ay conseil nag ci temps bii ñu am ci lan lañ ko war a passé euh, ngir mu bañ a nekk loo xam luy neen la sëñ Maxtaar. jërëjëf euh, sëriñ Mbacke Sourang maa ngi leen nuyu di la siyaare di nuyu suñu Omar mii ñëw léegi ci kanam waaye nag di nuyu waa C3S alaaji sëriñ sekk ne ca bopp ba sëriñ Fallou sëñ Dame Touré maa ngi koy nuyu baax di nuyu Moustapha Sarr waaye di nuyu itam groupe c 3 seen bànqaas yépp ci réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare kuréelu yeesal mbindum alxuraan wala yaatal ko ñu ngi leen di dab akum nuyoo ca fa ñu nekk ñu ngi ci activité yoo xam ne ñoom itam itteel na lu mel ni lii ñuy def suñ xaadim njaay ak ñam ko àndal ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar xam naa muy lu loo xam ne rek temps li ñu waxoon ci temps rek ñi nga nuyu ñëpp nuyu naa leen ñi nga ziare ñëpp it ziare naa leen bismillah waaw macha allah Cheikh Makhtar kon xam naa dañuy euh, sof fi ñu daane la woon rek waxtu am solo goo xam ni euh, am na am na ko solo ba ay alxuraan yi ci wàcc yëpp di tegtale ak màggam yii borom bi di si giñ wal fajir di giñ ci fajar léeg-léeg mu di giñ wa shams yooyu yëpp di tegtale euh, temps temps boobu yonte bi alayhi salaatu salaam xamal ñu doomu aadama day ñaari xéwal yoo xam ñu ngi ko séq doomu aadama ñaari xéwal yoo ko séq yoo xam ne daañu ko si nax ni ni'mataani maghbuunun fiihimaa ñu ne ko man ban mu ne as-siha wal faraax mooy bu nit ki amee ak wér-gi-yaram dara jotu ko mu waroon a fexe ba wér-gi-yaram googu mu am lu mu si def balaa feebar ñëw mooy waxtaan ne man juróom yooyu sëñ bi wax xamsan xubay lal xams waaye ak féex am temps defoo dara temps boobu nga waroon a am loo ko passé eh, passé woo ko xéwal googu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu doomu aadama mi ngi koy am ba pare di ko noo ñu koy sofalaat te moom nag mu jox ñu si ay bind yu bare bare ndax wax na ni moom temps daf ko séddale woon ñetti parti te moom lañ war a moom lañ ñëpp war a roy temps boo xam ni digganteem ak boromam la kenn mënu ko ko yàqal naafile ban naan ko afala akuna abdan shakura waaye temps boo xam daf koy jox njabootam itam di nos ak di nocci di xam li nekk si biir ak li ñu war a génne waaye temps boo xam ne mbooloo mi war a teg si aw yoon itam daf leen koy jox ba mën na bu gën leen génne ci ak réer teg leen ci yoon nga xam ne moom na temps séddale na ab temps ñetti heure benn bi moog ak njabootam benn bi digganteem boromam benn bi jullit yi xam dañoo war ànd ak war teg si aw yoon kon kooku ko doon roy ak ni mu amee solo si lan lañ ko war a def Cheikh Makhtar. jërëjëf sëriñ Mbacke liñ tuddee qiimatul waqt wala ñu tuddee ko qiimatu zaman parce que zaman moo jur waqt ak temps. jamono dafa am valeur bu mu am ndax dañ ne jamono mooy matière bi nga xam ne mooy sa matière dund bi nga am yow roogi mooy daw ci biir matière bi pour nga defar ko ci wala yaas bi lay tax la mbaamu yàqu ci jamono di li romb rombin wu gaaw moo tax boroom xam-xam yépp d'accord ci ne képp koo xam ne jël nga sa jamono def ca la nga war a def sëg dund jag na baax na ndax koo xam ne jël nga sa jamono def ca lañ ca war a def mhm. sag dund jàkk na sag dund baax na hmm, def sa la nga ca war a def moo tax arab yi ne al waxtu laa yantaziruka laa yantaziruka maam waxtu du la xaar yow kay yaa koy xaar moom mu ñëw romb la dem nga topp ñee ne ñeen al laa yarxam laa yarxam ba tey amul yërmaane moom day dem te kat am na ko ñuy wax Catherine hmm. benn américaine la hmm. daf ne nun ñëpp noo bokk waxtu kenn moomu ko kenn jëlu ko bàyyi sa morom waaye saa yi suñu résultat yi waxtu ñëwee nag kenn ku ne la nga cay góobee yaa koy maq lu am solo la wax nee na ñun ñëpp ñoo bokk waxtu wi bis bi fenk Sénégal mooy fenk Amérique mooy fenk Asie mooy fenk Europe waxtu yi itam 24 heures rek 48 heures yi ñoo ko bokkale nee na moom kenn du ko weddi mais nee na bu résultat yi dikkee day wuute lay wuuteel résultat yi nag mooy ñooñ waxtu ñooy jëf ca waxtu wa la wuuteel lañ ciy jëf loolaa tax résultat yi du wuute Mm. wax ju ama am solo la. ju ju rëy sax. ju xanaa moom ñoom moo tax ñoom ñu gëm time is money. Ah, time is money loolu ñu wax noonu. waaw ko bàyyi mu jàll. kon nag yonent bi salaa sallam bu jëlee waxtoom séddale ko jullit bu nekk dafa war a jël waxtoom séddale ko ndax borom xam-xam yi dañ ne yonent bi dañ ko yónni ci góor ñi. Hmm. góor gu ne ñu yónni la sa kër. Hmm. yonent bi dañ koy yónni ci góor ñëpp. waaw góor gu ne nag boo demee sa kër yaa fay yonent bi. waaw président moom la su boobaa nag bu ñu nee yonent bi def na nangam. sunna la ci yow mii déglu sunna. sunna la nga def ko. bu taqsimee ay awqaatam muy diviser ay temps. bismillah yow mi boroom kër yor sa njaboot. li gën a kéemaane sax mooy ñi nga yilif mën nañoo dem ba ëpp la yonent bi yilifoon ci nombre. danga gis benn waaye boo xam ne léegi aju ci ginnaawam. Mhm. mu leen di jox añ ak reer ak ndékki lu bari lay doon moom ci boppam it ay activité di activité yu bari ak njabootam itam nekk ci activité yu bari ginnaaw nag moo fi war a wutu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca lépp kon war naa jéem a jël wàllu boppam moom teg ko ci anam goo xam ne du ko caaxaane du ko fooye te mooy lan bu julli jotee ci waxtu yi la bokk bu woor jotee ci waxtu yi la bokk bu asaka jotee ci waxtu yi la bokk bu yar sa njaboot jotee ci waxtu yi la bokk mm. loolu góor gu ne yaa ko war a defal sa bopp toppandoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allah njabootu bopp gi itam nga di leen teg ci yoon am yooyu nekk ak ñoom di leen di leen waxal leen tere di leen digal mooy mooy inna fil iyaali turqan mooy addunaa sax nag al ihtimaam ihtimaam yaa xalil bi ndax mm. li gën li gën a feebal ci sa sa njaboot mm. mooy ana diw ñu ne mi ngi fi ndax lekk na waaw ndax naan na waaw ndax nelaw na loolu ci gën a tuuti ay yeneen responsabilité yi ko gën a ëpp mi ngi ci mm-hmm. bi ci des nag mooy sa mbokki dëkkandoo yi ñi ngay romb ci mbedd mi maa ngi démb rek maa ngi ciy def benn gëstu mooy kun fi dunia ka abiri sabilin allah ndeysaan kun fi dunia ka abiri sabil waaw in lam tanfa fala tadur wallaay ndeysaan fi ne loolu yomb la suñ suñ mbàkke hmm, waaw mooy ki jaar ci yoon di dem hmm. ndax mas na kes na te muy ak nit nag laa wax ndax kenn mas naa gis muy fil ay taabali jàmbur ak a pese. Ah, kon léegi nag toppandal ko ci sa dund gi. kon fi dund yaa kaabiri sabili mooy toxal normal rek. da ngay dox normal rek bu mm. fi jàdd bu fi dara ay nit ñi. tey doo fi bi ki des déedéet ne la. fexeel ba koroom nga ne ko salaamaaleykum waaye bul fil taabalam. waaw in lam tan amul njëriñ moom. moo tax yonent bi saa salaam waay jëriñeel. sa firi moom neex na de in lam tan sax falaataatu. mooy bu bu daanee taabali jàmbur yi. dëgg yàlla. moo tax benn waay. Mm-hmm. damay damay gaaw di fàtte. Mm-hmm. Euh, daf ne yonent bi saasam daf ko ne njariñeel. Mm-hmm. moo gën. waaw ah. soo ko mënul nag sa lor ji ba ko yóbbu kenn. wallaahi ndeysaan. ok kon moom benn nga doon boromi njariñ. Mm-hmm. mbaa boog lor ji nga am ko nga bañ. saa nafin bi laa darar. saa nafin bi laa darar. parce que da la njariñ amul lor. kon su boobaa temps boobu ñu wax. te des koy réccu ki dem àjjana dana réccu ki dem sawara dana réccu. ki dem àjjana la mu fay fekk ci ay xéewal du dul toll ak la mu jëfoon ci àdduna càgganteem ngaa koy naqari muy réccu hmm. ki dem sawara moom ñëpp xam nañ la muy réccu muy bu sañoon du tàbbi fee hmm. léegi nag loolu mooy lan law kunna nasmahu aw naqil xaqlu mooy jëpp nit hmm. waa sawara sax dañ naan buñ amoon xel duñ fa dem law kunna nasmau aw naqilu maa kunna fi ashaabi sahir wala kon ndekete ñàkk xelay tax nit di jël temps di ko pertal ci loo xam ne bu ëllëg si biir ay duma da ko ci dikkal ba métti bi ah, ah, nga xam daal li maam li xel nangu daal mooy nit ki bu fekkee am na xelam wóor a perte temps eh, eh. nga xam daal kii perte temps moom mënees na ko jàppe dof dof la waaw parce que xaq lu mooy <laughs> xam ne moom toujours rek daanaka mooy séparé ni mooy tax ñu mën laa takk li fi sax nag xaq lu mooy ab mooy li lay yeew waaw li lay ba ne la lee wëroo ca ak mooy lay rat nga xam da lay yeew rat <laughs> ok léegi nag su boobaa sëñ Mbàkke hmm. kon sallallahu alayhi wa sallam mosut a perdre temps xalaatu ko woon. léegi ñi xam dañuy perdre temps nag toog du duñ liggéey amal bitaala wa tadyiu al umr bi gayri ma yaani fadaauha yadur suñ tuwaa nee na perte temps toog di perte temps di nekk si lu amul njëriñ moo moo raw moo moo corona ñooyam maam épidémie la fadaauha yadur ah, te da gis ni léegi lépp si nit ñi moom perte temps wala jël seen dund di ko def si lu amul njëriñ ah. foofu ban yan bind lañ si mën a jàngi si chargé temps ba wa arghabul ashyaai lil amwaati bala ñu cee ñëw fala wanna lana karratan fa nakuna minal mu'minina ña dem ba xam la xew ñoom waxuñu yàlla ne ko may ñu waxtu mm-hmm. néewuñ ko may nu bés karra mooy mm-hmm. na yàlla may ñu trente minutes bu ñu demee Sénégal duñ ba duñ fa nuyoo duñ fa fayu nuyoo sëgg si jaamu yàlla rek lay la nahaar aw na raddu fa naamala ghayra alladi kunna naamal bu ñu delloo c'est sûr que dootuñ def lañ defoon mm-hmm. moo tax benn borom xam-xam ne dafa di ko dawlu bis bi mm, di ko daw di ko dawlu mooy doomam ju faatu mm. nee na mu ne ko foofu nu mel mu ne ko fii de xam-xam bu leer nañ ñi la waaye àndut ak jëf mm. loolu la ko doom ja wax ne ko lépp lu ñu doon wax fii ay borom xam-xam rek fi ne mooy mooy alaaxira waaye nag kenn du fi xëy mu ne ko bàyyi yow nag xam nga fi nga nekk mu ne ko xam ah, mu ne ko jëf ju yaatoo yaatoo waaye àndut ko xam hmm? waaw mu ne ko foofu ngi nekk di àdduna xamu leen lu xew ba kiy saraxe sax du xam ne sarax am na yool bu rëy kiy jàng du xam ne jàng am na yool bu rëy kii per de temps xamu ne ñu ngi koy xaar. ci yan parce que foofu ak fay rek moo fa am. foofu rek fay fa am fii nag jëf ak. Hmm. fii ko doom bi ko bàyyi bi laajee ne ko luy pexe mu ne ko bàyyi sa digganteeg sa borom mbubb sax bu mu fi dox. Hmm. buur gi daal di fay doxee nag ba ni mu faatoo solatul mbubb mu am solo. ndeysaan kon lii ma bëgg a wax mooy ña faatu ñoom buñ dellusiwaatoon waxuma la yàq seeni temps. waaye lañ am ci temps ku si néew dañ ci dul jokk lenn lu dul yàlla hmm. wa arxabal asyaai lil amwaati xanaa loolu la sëñ bi dégg ba tax muy lam lam an xuma lam yu fiti maam musuma jublu lu amul njariñ yaa waxoon léegi ne min xusni islaam tarku maa laa yaani mooy lépp lu amul faayida hmm. maa laa yaani mooy maa laa maa laa yufiidu ko macha allah moo tax nag moo tax moo tax moo tax jàngataat euh, mag ñi am nañ solo de am na solo yaa xayra maahi maha junaahi mhm. mahal misaayi waxta sawa nga xam ne kaf gi xale di def sax xam daan dara du ko ci fekk mhm. moom sëñ bi nee na bi mu doonee gone la ko bàyyi xam nga kooku nag nekk sa kanam waroo am temps boo na am temps boo yàq te dalaa avertir lil amwaati mhm. raddun ila dunya ma al xayaati ña fi jógee ñoom mhm. seen shay'un mooy li ama kus néew mooy ak a neexoon ñu dellu si walaw suwayatan donte trente minutes la saatun mooy soixante minutes suwayatan mooy trente minutes dañ ko tasxiir dañ ko tasxiir walaw suwayatan faqat li yaamalu saalihatan tanfaahum in qafalu suñ delluwaatee danañ xam ne kon lañ defi woon ca 30 minutes yi moo ëpp seen dund gu njëkk gañ dundoon 90 ans ci 100 ans xam ne yenn la ni la ñoom bu ñu ñëwaatoon lii la ñuy def lii la ñuy def léegi yow yow mi fi des nag faxta ni man faxta ni man baaqiya umrin qad mada mhm. bi gayri taatin wa lil xayrin hada yow mi fi des hmm. irtinaam mooy lan xunmu mooy loo xam ne da nga ko séen te fasoo yéene mu mu raw la. Hmm. te boo ko xasee ba jël kenn du ko nangoo ci yaw hmm, hmm. loolu mooy mooy mooy ixtinaam. ixtinaam force. mooy sa temps bi na ko jël. profité woo ko daal def si li nga si war a def waaw. kon nag sa dund gi li ci wéy te amul njariñ gaawal profité li ci des amal ko njariñ. qabla la fa fawaati wala taxfal wala taxfal abad ani muraat li baatini jasad. ba tey sa nafas yi sax. na nga ko tënk. li ana la nafas. waa min rajulin jawharatu nafisatun lam tanjali nooyi gone mën Hmm. waaye nooy yi gone it mën nga cee perte ndàmp. Hmm, waaw waaw bi ngay jënd rek lañu wax waaye déedéet. boo ko mën nga see am na am na positif am na négatif. am na négatif. Hmm. moo tax mu ne kon mën na cee jënd këns. laa tatnaaha xayruhu fantabiha. ba bu ko arab tuddee ci wax. day wax ak ñu sàggan. ndax lii ku teg ku jekki bañ di la ko wax. sàggan nga lay tege tege boo nga loolu sax macha allah. bu ne faalam. day jàngale. ku nekk mën nga caa bokk. wattul ku mokkaloon la. dañ bëgg mu mokkal ma tax toujours baat yi muy mujjee day duggaat ci biir leçon yi. te xam nga suñ euh, suñu maxtaar damay wax ne am na loo xam ne bu ko nit ki doon teewlu sax. Hmm. Euh, ginnaaw bokk ñaan yàlla defal ko tawféex. Hmm. Euh, dana fexe ba temps dana ko respecté ndax. Hmm. comme dañuy wax nit ki ëllëg laa tazulu xadama abdin xataa yusal an arbain maam nit ki bu génnee ci bàmmeelam balaa jéggi benn pas. dana am ay question yu ko laaj yoo xam dana ko tontu doog ana umri fii ma afnaaw sa dund gi si loo ko passé xam nga loolu ay soññee yu ama am solo la parce que loolu bu ko nit ki tegee si bëtam li naan bu bëggee jub jëlal dee teg ko say bët sa bët moom bu teggigul si de il faut nga exploiter sa temps si anam nga moo tax borom xam-xam dañ ne kon temps moom mooy ndab li nga xam ne jëf yëpp ci temps lañ koy sotti jëf ju mu ci temps la kii def ab safaan ci temps la ko jële sotti ko ca ka def lu baax ci temps la jëlee jëfam sotti ko. ndax kii amul temps kenn laaju ko dara. amul temps kenn laaju ko dara. Hmm. kon nag moo tax ñu ne kon nit ki na fexe ba xéewal gi ko yàlla jox muy temps te kat nañ ci ñëw tuuti sëñ Ambaat. Hmm. dafa am góor goo xam ne dafa feebar. Hmm. dem hôpital ñu defal ko oxygène vingt quatre heures. facture bi génn di quinze millions. góor gi jooy. doom yi ne ko yow papa li nga yor ci xaalis nga xam ne yow quinze millions yi moog borom milliard bu joxe ñetti d a loo ciy jooy mu ne du loolu. ba ma juddoo ba am 90 ans may nooy ci oxygène bu jàmbur kenn musuma facturé. wallaahi 24 heures képp ñu ñu facturé ma ci 15 millions. man de su ma fi jógee dinaa fonk ku njëkk ka. ma joxoon <laughs> uh-huh. kon mooy ndekkete nit ki lépp loo xam ne mi ngi koy def. Mm-hmm. jamono yi mu koy def yëgu ko balaa koy xam rek da ko ñàkk ba pare. macha allah Cheikh Makhtar xam naa fi ñuy jeexale li jëm ci wàllu taswif mooy li naan néeg néegal. war a def dara naan naa xaar ba si kanam loolu tam dafa mel ni lim mën a yàq bari na. seytaane koy waral te jàngoro la joo xam wares na ko mën a faj. ok sëriñ Tuubaa radiyallaahu nee na. Mm-hmm. liy faj mm-hmm. wala liy faj niig niigal. war a def dara naan naa def dara te defi woo ko. Mm-hmm. ndax da ko fekk bu ëllëgatee. wallaahi ndeysaan wóor ndax danga ko man ni nga ko mane woon tey. yooyu ginnaaw amoo ku la ko garantil boo xamee ne kon lii nga man def ko tey. ndax suba mën nga koo tële. su mën nga ko ñàkk a fekk nga xam ñi ko xam mooy naa xaar ba si kanam war a def naa naa xaar ba si kanam foo ko fekk nag seytaane la seytaane la bëgg ne bul def bul def bul def mhm. moom moo ko jëkk a itteel ci yow bul def bul def bul def lu baax mhm. soo jógee bay def mu ne gaawal gaawal gaawal mhm. soo ko yeexamtaloo mu ne naw ko naw ko naw ko du la bàyyi mukk ba ba muy mën a ba keroog muy mën a jëf si yow rek jëf ja kon taswiif ñi koy def foo fekkit kuy tas xanaa xanaa comme moo tax simina laa taamunu makaayida seytaan xabla firaaqi ruuxi li jismaan bu leen wóolu mukk pexe seytaan parce que saa su ne na laa fekk si li nga nekk yàqal la ok hmm. dafa am góor goo xam ne yonent yàlla moo ko yaroon hmm. mu jàmbaare lool bi Isaa di dem ne ko maag yow nag sunub dajee bis pénc la mu ne ko orowaar kenn ku ne dem yonent yàlla Isaa nelaw jóge fi daal wala mun naa aw ca kaw yëpp hmm. góor ga di jaamu yàlla saytaane ne koŋ-koŋ ca fenêtre bi mu ne ko kookan la mu ne ko mën a Isa mu ne ko yow man Isa bi ñuy tàggalikoo maag moom suñu rendez-vous bis pénc lu muy wut fii fi man mhm. mu ne ko génnal ma wax la mu ne ko Isa dootuma génnati yow maag yow confirmé nañ ba not man mhm. li ñu waxante maag yow parce que xam naa Isa waaw xam mhm. daal di yuuxu daw ndekete kon li mu bëggoon mooy génnal ji bu génnoon rek mu yàqal ko mu yàqal ko allahu akbar kon moo hmm. tax bi ko saytaane bëgg a te bu ko sànnee ba ko mbaalee dootu rëcc bokk na ca yàq macha allah macha allah Cheikh Makhtar Cheikh Makhtar eh, ñu lay doole sant bu ba a baax te di la jaajëfal wax dëgg yàlla ku xam mbokk yi bari sax daan naa ma dee ko bàyyi muy wax ma ne ko nag ab liggéey moom bu fekkee daa tënku si ay minutes. Eh, donc loolu mooy waral ñuy toog ak moom. nga xam ne Cheikh Makhtar moom buntu boo ko ubbil macha allah. mën na saa waaxu waaxin woo xam ne moom boo sàggantul eh, boo ko bëggee dabu jaar sax mën naa jafe. kon loolu lépp nag ak cant la. la Cheikh Saliou Mbacké waxoon sew rek la ñuy seede mm, euh, maanaam seede na sag xam bari xam-xam euh, te it boole na sene koo xamal mu xam waaw loolu moom day mel ni jeexit boobu euh, mi ngi am kon yàlla nañ la yàlla fayal te itam bari say kem di jaa jaajëfal nag bu baax a baax nañ ko baaxoo di wax rek ñi nga xam ñooñu ubbi bunt bi bañ mën a taxaw fii di partagé mm-hmm. ak mbokk jullit yi di jàng leen te ñoom ak diine mm-hmm. xam naa fi ñuy wàccee suñu kàddu rek mooy li li sëriñ bi wax mm-hmm. di wax ni fa saadiqul murid man yanqalibu bi xukmi waqtihi amaamahu mm-hmm. fa inna zaaga yaxrimu min islaahi ma hunaalika nee na daal sëñ bi daal ni mu tënke murid saadix mm-hmm. dëgg-dëgg mooy koo xam ne jubóo na ak boromam te boromam ñor na ko mm-hmm. nee na moom toujours xukmu waqtihi li temps bi mu nekk lim laaj rek loolu lay def du war a def dara mukk treize heures naan naa bàyyi ba treize heures et du war a def dara mukk quatorze heures naa bàyyi ba quinze heures parce que boo demee ba quinze am na leneen lu la war a toon bu fekkee nag war-war yooyu dajaloo na nag si benn waxtu il faut que am si boo xam di ko sàggane wala am na si yoo xam sax amaana doo ko def kon Cheikh Makhtar dañ lay bàyyi si ñaari cinq cinq secondes rek nga tàggatoo. ñu joxe waat doog dijee si beneen numéro yi. solar bi ci yu mel nii. di hmm. sant bokk yooyu nga xam ne ñi ngi tànn yu mel nii di ko andi. Hmm. ndax kiy wax. kii dégloo ko gën a muus. dañ sax bari na ko la andil ab xibaar. ko yët ab xibaar yow mu ko ko yët. moom nga moom moom moom moom ma nga ko yët moo la ko gën a dégg loolu loolu moo dal na suñ mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp wala kulli xaalin li ñu waxtaanee tey mooy adduna ku bëgg a defar sa adduna waa adduna sax fi ne américain yi li nga ci wax léegi lu leer la ca lañ bëgg ñoom ña nga cee jël seen temps di ko ca def mooykati yàlla yi sax dañuy jël seen temps dem mooy ko yàlla ca lañ bëgg kon ma yaakaar ne jullit bu amum xel te amub amuk dégg war ngaa jéem a jël sa temps yooyu itam dépensé ko ci la nga bëgg te la nga bëgg mooy la sa boroom bëgg loo xam ne nag ëllëg rooge bu nee farax dem daa loo ci def boo ko expiré waate mu dikk ñu laaj loo ci def daqaiqul xisaab kon su boobaa foofu am fa temps boo xam ne day yaatu nga moom ko nga ne lii la ñu ne mooy ba ngay jàng alxuraan ñu ne bokkut ñu ne déedéet gis nga récréation récréation maanaam doo doo yaa nga génn bu suñu borom de isaab nit ki day dem ba yàgg ñu ne ko fii ba midi demal ñu ne ko loola mooy la mu ne ba ngay ànd ak sa waa kër ñi di lekk fii ba midi demal ñu ne lii la mu ne ba ngay jug nga fii ba 3 heures 4 heures amatoo ñu ne da jël repos ñu ne ndax lan ñu ne mooy ba ngay yëkkati sarax di ko jox miskin kon nag loolu buñ ko xamee suñ jëf yu baax d'accord kenn mënta ñàkk def lu bon waaye nag innal xasanaati yudhibna sayiaati nañ fexe ba suñuy xasanaat ëpp suñuy sayiaat wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaw euh, kon baax na xam naa kon mbokk yi foofu la ñuy ñu ngi jaajëfal baax Cheikh Makhtar macha allah ci euh, thème bu am solo bi nga xam ne jël nañ ko xanaa di ñaan rek borom bi tabaar defal ñu ak dégg ak topp te xam ne temps itam lu gaaw la comme ni ñu ko waxee woon léegi ci bayit Ahmed Chawki boobu rek nee na ca xol bi ni nga koy lambee muy def tëf tëf na information bi mu lay jox mooy da lay xam ne dund gi kat ay seconde la ak ay minute te yow doo si bàyyi xel te bu set mi ngi lay informé mooy daqaatu qalbil mari qailatun lahu inal xayaata daqaa'iqun wa thawaani nee na kon sa xol bi ni muy fëggee nii daf la jox information naan la yëgal ni dund gi kat ay seconde la ak ay minute waaye yow nag bàyyi woo ko xel kon mbokk yow mi nga xam ni eh, yaa ngi ñuy topp nga jël fexe ba temps nga xam ne lu cher la eh, nga la bu ko bu ko yàq boo nekkee si liggéeyu jàmbur moom entreprise la wala lu mu mënti doon xamal ni temps nga nekk te temps boobu nga yor liñ la siy jox nga war koo delloo sa njaboot boo yàqee temps bi boog lu bokk sa liggéey bi la ngay fayu ko lewut moo xam yaa ngi koy bàyyi xel wala bàyyi woo xel boo yoree ay doomi jàmbur di leen jàngal alxuraan nekk ci digg xalqa bàyyi donga yi yor sa portable di message wala di whatsapp yaa ngi yàq temps boo xamante ni buñ la ko xisaabee mën naa feeñ ci liggéey bi ngay def loolu lépp nag ñaari nit ki mën na ko bañ a xam waaye nag jéem koo xam dana tax nga mën a tënk sa dund ci loo xam dañ koy leloo rek ci li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ni li baax si ab jullit daal na fexe ba lépp loo xam amul lu ko njariñ mu ba ko lu ko amal njariñ nag mu nekk si kon wabi hasa wabilaay tawfiq salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bismillahi rrahmani rrahim fastamsik billadi أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون